Nous avons une coordination communale parti socialiste de Nous ñi ngi le dimanche 1er novembre 2020, C'est centre culturel euh, Serigne Sambay Nous avons une situation bi parti socialiste sur le plan politique Nous avons tamit euh, euh, interprétation yi nga xam la texte yi parti socialiste. bi ñu xoolee tamit liggéey bi nga xam ni bu mucc ayib bi nga xam ni suñu camarade Aminata Mbengue Ndiaye secrétaire général du parti socialiste mi ngi koy def ñu xool tamit ne nga xam ni euh, moom mooy légitimité bi mu am ci parti socialiste ci post secretaire général euh, bi bi nga xam ni moom la jël bi suñu camarade euh, Ousmane Tanor Dieng dëddoo àdduna nga xam ni texte yi moo ko jox parce que moom moo moo tegu woon ci moom léegi bi nga ñi ngi xam ñi ngi wax ni ñi ngi koy jàppale bu amul app si le fait que mu nekk camarade notre secretaire général du parti socialiste ñi ngi euh, biral ni am nañu kóolute bu boo xam ni am na suñu diggante ak moom nga xam ni moom mooy jiite parti socialiste ñu ngi koy dëggal ni ñu ngi nekk ci wetam muy guddi muy bëccëg muy sedd muy tàng ñu ngi koy waxit it ñu ngi koy féddali suñu kollëre di liggéeyandoog moom ba nga xam ni parti socialiste bi doomam yi ci génnoon yëpp danañ dellu siwaat ñu ngi koy féddali suñu kóllëre it di suñu président de la république mu Macky Sall président coalition Benno Bokk Yaakaar ndax li mu dige woon ak le parti socialiste yëpp mi ngi ci. boobaa ñu ngi koy feddali suñu kóllëre di ko jaajëfal di ko waxit ñu ngi ci wetam di liggéey ak moom ci Benno Bokk Yaakaar ñu ngi ko def tey jii Louga 1er novembre 2020 coordination communal du parti socialiste bu Louga El Hadj Cheikh Oumar